الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع صحابته الطيبين الطاهرين ومن نهج نهجهم واختدى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام نحييكم ونرحبكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي ginaaw bi ñu santee yàlla subhaanahu wa ta'ala julli ci sang bu tedd bi di sayyiduna muhammad ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu indiwaat fii ci seen émission bi ñuy faral di ko taxawee mu di émission xam sa diine ci seen sit internet bi ñu tiddee Elvision Média mu melni ñi ngi nuyu ñi ñuy sétan ñep mo xam ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew fu way tollu rek ñi ngi lay nuyu ci bat bi ñu yalla boole di ñaan li bat bi lamb yépp yalla nañu ko yalla defal inshallah nuyu itam suñu cameraman bi di El hajlo fa tabarakallahu and ak sunu soxna bop bi di soxna Jeynaba Balde di ñaan yàlla ci seen liggéey bu rafet bii ñuy taxawee yàlla na leen jàll defal tawfiix ak ndam incha ci barke yonent bi eh, mu mel ni tey nag seen émission xam sa diine dafa ñëwaat ànd ak yéen comme niñ ko daan faral di defee rek xam naa nañu ma baal rek ci baat bi ma bëgg tudd te ñu war ko waxtaanee mu di fenn gis nga pour wax la danger gi mu danger ak garaaw gi mu garaaw ba tax ku koy tudd rekk day wax ne nañ ma baal ci baat bi parce que mënul tëb automatiquement tudd baat bi ngir rek garaaw gi mu garaaw moo tax sunu boroom dafay wax ak ñun ci alquran ne ginnaaw ba ma leen bindee yéen ñi ma gëm maa ngi leen di dénk rikk waay bu ngeen di ànd ak na ànd ak ñi dëgg te bañ a ànd ak ñi nga xam ne dañuy wax la ca ginnaaw dëgg te itam xamuloo ne nit ki am na ku nga xam ne booy ànd ak moom bu fekkente ne ku baax la dina dema dema ba yow sa bopp dangay mujj baax ndax arab yi dañuy wax ne واختر قرينك واسط فيه تفاخرا إن القرين بالمقارن يهتدي فإن كان ذا خير فقارنه تهتدي أو كان ذا شر فجانبه تهتدي dañu wax ne ki nga xam ne dafa yor jikko yu baax yor jikko yu yiw yor jikko yu sell ngay ànd ak moom dangay dem a dem ba sa jikko dafa mujj yiw dafa mujj sell waaye itam noonu la amee ci safaan ba moo tax yonent bi sallallahu alayhi sallam nee na yàlla daf ma yónni pour ma ñëw jikko yi ngeen manqué ma mottali leen ko ndax daf ci am jikko yu bari yu nga xam ne baaxul te ñun dafa nekk ci ñun bokk na ci benn rek bi ci gën a danger rek mooy fenn xamuloo ne benn waay mos na ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi sallam ne ko man daal dafa bari jikko yu nekk ci man te itam ma bëgg ko bàyyi te mënuma ko bàyyi yonent bi sallallahu alayhi ne ko benn jikko laa lay digal rek def ci sa kemt lay kàttan fexe noo ko bàyyee mu ne ko mooy ban mu ne ko mooy fen gis nga nit ki bu bàyyee fen dana dema dem ba bàyyi lépp parce que mi ngi mel tey El nekk sama way jur aaye ma naan sàngara léegi bu ma demee ci baar bi naan sàngara ba pare su ma ñëwee El laaj ma ndax danga naani woon sàngara su mun a ko déedéet fen naa te itam pour ma bàyyi fen dama naan ko naan naa léegi ëllëg damay dem ba damay rusa jàkkaarloog hélas di fen ci kanamam damay mujj a bàyyi sàngara su may sàcc itam noonu lay mel su may def leneen ak leneen noonu lay mel parce que am na ku nga xam ne ni muy mel ci yow da ngay dem ba da ngay rusa jàkkaarlook moom di fen ci kanamam léegi ngor googu di daw sa sa deret mooy tax da ngay dem ba da ngay mujj a bàyyi fen complètement dégg nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ay melokaan yu nekk ci doom aadama su dëggoo lépp bu baax waaye itam am na melokaan yu nekk ci moom yoo xam ne bu fekkee fenkat la yépp dafay bon te yàlla dafay wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun ndax nee na kat kaburat maxtat inda allah أن تقولون ما لا تفعلون يالا نينا بكار بي غنا ري سي مان موي غي واخ لو خامني دوكو ديف تي واخ لو خامني دوكو ديف موم لا ني تودي فين تي بوي خول يونتي بي صلى الله عليه وسلم غيس نغا بامي ليم جيكو يي ني خامي نافق بامو نيكا ليم موي كو خامني فومو توغي واختان ريك بلا فا جيغي فين يونتي بي نينا كوكو فوكو غيسي خامل نافق لا koo xam ne fu ngeen waxtaanee bala faa jugee fen nee na kooku xamal ne naa feq la dafay dem sax ba ci dangay gis nit koo xam ne yàlla daf koy may lu ne muy wax naka su dul noonu waaye nit ñi xool ga xool la ca moom la ñuy am lu ñuy yaakaar ci moom mooy tax sax duñ ko mën a wax li nga wax du noonu te yonent bi moo ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi lisaanihi فإن لم يستطع فبيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان yonent bi nee na képp koo xam ne da nga gis naka sudul noonu na nga ko kaas ak sa làmmiñ boo demee ba nga xam ne mënoo ko kaas ak sa làmmiñ na nga ko kaasee ak sa loxo boo ko mënul itam nga kaasee ko ak sa xol moo tax benn woykat arab dafay wax ne إن الغني إذا تكلم كاذبا خالو صدقت وما نطقت محالا أما الفخير إذا تكلم صادقا خالو كذبت وأبطل المقالة نانا نيت ني دم نانيو باتي اي ديس كو خامن دا فاي تخاو دي واخ لو خامن دغ لا واي نيو دوله گمو نيو دوله نيو كاتان گمو نيو كاتان تخ نيت ني نكي ليمي واخ اي فن كاسه waye tim neena da nga gis ko xamne borom daraja la borom maqama la borom mbir la di taxaw di wax naka sudul nonu waye waaye yaakaar ga ci mom dara xol gën koy xol beut motax bu fene kenn duñu ko nga fen léegi nak rew bu deme ba tollu fof nit ñi mënatuñ waxante deug mais musiba mu ñuy bëgg dal musiba mi ñuy bëgg dal te man dama ne nga anda ak yalla nit ñi bayila mo gën yàlla bàyyi la nga ànd ak nit ñi parce que yàlla bu ànd ak yow am nga sécurité bu mat sécurité mais nit ñi bu ñu ànd ak yow bu la fi yàlla bëggee jëlee nit ñi mënuñu laa fexe ba yàlla du fi jëlee moo tax yonent bi ne pour ngeen noppalu pour ngeen di wut dara mu yomb leen bu ngeen bëggee bunt bu ngeen fëgg mu ubbeeku maa leen di dénk benn mbir ñu ne ko mooy ban yow yonent bi mu ne aleykum bi sidq fa inna sidqa di ilal birr wa innal birra yahdi ila janna yonent bi ne bii jikko ma leen di dénk de bu ngeen ci jàppee mooy li leen di wommat jëme leen ci ngeen def lu baax te itam lu baax loolu ngeen di def moo leen di wommat jëme leen ba aljanna ñu ne ko mooy lan yow yonent bi sallallahu alayhi mu ne na ngeen di dëgg waaye xamuloo ne nit mën na dëgg ba pare te du wax dëgg nit mën na dëggu te du wax dëgg El Hadj mi mën na nekk nit ku dëggoo dëggu waaye nag nit mën na ko woo ci ruq defal ko nag su noonu mu génn wax loo xam ne du dëggu kon moom dëggu na waaye mënul wax dëgg nit mën nay wax dëgg ba pare tamit te du kon yépp mën na nekk waaye yonent bi ne nag maa ngi leen di moytalikoo tamit benn mbir boo xam ne bu ngeen ko defee seeni buntu tëj tëju lu ngeen yuutu du ngeen ca jot lu ngeen dem ba am ci yaakaar mu yàqu ñu ne ko mooy lan mu ne na ngeen moytu fenn ndax bu ngeen di fen fen moo lay ñot di jëmale ci lu bon nee na lu bon loo itam moo lay ñot di la ñot di la ñot ba ànd ak yow biir safara kon nag yàlla nañ ci yàlla musal moo tax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne nee na xuru mbugal ndeysaan benn góor gu baax bu ko daan firi day wax ne am na xuru mbugal wu nekk ca safara ñi ne ñan ñoo ko moom yonent bi ne mooy ñi nga xam ne dañuy wax te la ñuy wax lu dëgg ñiy fen nee na sax dem na ci ba nga xam ne yow miy waxtaan ak nit ñi ngir wax benn baat pour nit ñi ree rek tax nga fen wala nga tagg nit ki ba jaaree ca fen yonent bi nee na yow jàppal na sa kër ëllëg mooy xuru mbugal wow nekk ca safara kon nag yàlla nañ ci yàlla musal moo tax waykat bi daal dafay wax ne ida kunta da maalin وأنت محبوب وخولك مقبول وحكمك عادل وإذا كنت ذا هم وأنت مغبوض وخولك مردود وحكمك باطل يعني أنا كريو أمنا في ميتول دم بغا خمنا ني وارا وخ دق بني وخي دق كن دولن ويو كن دولن فالن دخسين نيو دولة نيغا خمنا نك نيوي بروم دراي دي بروم سانسي دي بروم باركي نيو نيوي وخ نك سلول نونو nit ñi di leen déglu bu ñu demee nag bay déglu ñuy wax naka su dul noonu nag kon nañ jàpp na réew mi mu ngi sooxee kon réew mi li koy jagal ñun ñëpp bu ñu àndoon bàyyi benn baat rek benn baat muy fen ñu baal ma ci tudd gi ma koy tudd bu ñu bàyyi ko rek lépp jag waaye tànk mënuñoo bàyyi baat boobu nañ xam ne fi mu toll nii affaire bi awagul ci jag kon nag nañ ci def suñ suñu kemtalaay kàttan ndax yàlla nee na man kat ki ma àndal mooy kiy wax dëgg ku dul wax dëgg doo sama xarit. kii si wax dëgg mooy sama xarit kon nag ñi ngi ñaan yàlla mu boole ñu ci xarit boppam yi bu ko defee comme niñ la ko waxee woon rek ah, ci ba ñuy ubbi mu mel ni ñu ñuy signalé di ñu wax ne li ñuy desee ci waxtu bariwul te fa ñuy jaare waat ci nuyu rek mbokk yi ñuy seetaan yépp fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew yépp ñun itam ñu ngi leen di bégee fa tabaarakallaahu te di leen ndamoo itam di leen safoo ah mu mel ni di leen jox dig daje rek alxamis bii di dell dellusiwaat ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci waxtu wii ngeen di ko ànd ak seen mbokk seen xarit seen soppe seen wëlëre xaas Babacar Sàlla fa tabarakallahu nuyu xaas loo bi ak itam suñu soxna si tedd ni ñu ko waxee woon ñaan yàlla liggéey bi yàlla na ko yàlla barkeel yàlla yàlla def mu doon ay télévision yu mag a mag a mag a mag ah comme nu mu la ko waxee woon rek fii ma jaar nii xam boo xoolee xam ne ah tabarakallahu sama téyër bi moom itam di def liggéeyam ci mbir mi di def participation ne ma ah bu ko yàlla jàppandalee rek boo koy defati ñu solal la bu ko defee moom itam ni ma la ko waxee woon mu ngi dëkk fii ñu koy tuddee xaas Samba di beneen tailleur numéro téléphone am ku ci soxla rek di 77 079 21 95 mooy numéro am tabaarakallaa bu ko defee rek ah ñu yamale foofu kàddu gi rek di leen jox dig daje alxamis bii di dellusiwaat ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bi muhammadin wa bintihi وابنيهم الشبتين أعلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم صاداتنا أهل المكارم والندى فر سقام العبد واكسف كربه يا خير من مدى العزات له اليدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته